ni président Idriss Seck donc depuis bërki démb quand même ma li nga xam ne nag mooy mooy logique te mooy cohérence fekkante ni jëlee nga ma ci poste deuxième vice président bu parti bi lii logique mooy nga proposer président de la république keneen pour mu remplacer ma ci biir gouvernement bi mhm. donc ma démissionné ci poste bi jox ko delloo donc am na lu ma ci wax waxtaan nañ ci waxtaan na ci président d'accord na ci non d'accord